kilifteefuk sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides alaaji Mor Faati Mbàkke xalif Maam Cheikh Anta sëriñ Jiili Mbàkke xalif sëriñ Modou Mamoun ci ndigalul sëriñ Abo Mbàkke Modou Mamoun sëriñ Cheikh Abdou Mbàkke jëwriñu sëriñ Amdi Moustapha Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbàkke kàdduy cant jëm ci mbooleem taalibe yi jaayanteeg moom sëriñ bi di leen fàttali addiya yanu baaxoo dajale ca Daaru di ca mottali yéeney Maam Maam Cheikh Anta Mbàkke ak sëriñ Mouhamadul Mamoun Mbàkke moo a Mouhamadul Fadel Mbacke addiyee Daaru Salaam jooji Serigne Cheikh Abdou Mbacke ca lay soññi boppam di ca soññi te dajale ko bala ñoo àgg ci le 25 janvier ñëw jébbal ko ko te bu ñu sañoon liggéey bu ñu mës a liggéey liggéey bi ren bii dina ko ëpp yokk suñu pëstéef wane ci suñu njàmbaar mi ngi leen di ñaanal ngërëmuk yàlla ak pajuk aajo Cheikh Abdou Mbacke maa ko naw ndax yoonu jub la aw di daw ko topp mbooram dal di raw samaas ga làq ay ngërëm daa fonk diine sàmm ngor te jaamu yàlla moo ko ñor seex am di mbakke moo ko jur yaa moo mi xaadiray ndeyam mooy tuddi doom di teg ci sëy jullee ña moo ci doy seex abdu mbàkke jara way moo tax ma jox ko aw taggam yendu ci jàng alxuraan guddi ca der ba lay fanaan di wër di julli ak a ñaan nu am texee fépp fa nu jëm addiya ak joxe ndigal mooy jur texe fekk yi mbugal barkeeg ngërëm ku mu soxal na teel la bay dalu sasam